voilà ah, bu ñu delluwaatee ci Moubarak loo euh, est-ce que tey li li ñuy dund nii ñuy obligé di tekkat ci gafa askan wi du conséquence politique endettement bu bon bu nguur gi. Euh, ñaar moo am benn dangay njëkk a xool euh, li nga soxla nguur moom da ngay njëkk xool ay dépenses mhm. lan la war a dépenser. <coughs> war naa fay ay jàngalekat war naa fay ay fonctionnaires yu nekk ci bureau yi war naa tabax ay yoon. su ñu dajalee loolu yëpp mooy li nga xam ne moom la soxla ndax yow sooy defar sa budget kër noonu nga koy defee na nga njëkk a xool lan la kër gi soxla su paree nag ngay doog a wuti nan ngay fexee ba loolu nga soxla am jumtukaay yoo xam ne moo lay may li nga soxla lépp nga mën koo dépenser. Mm-hmm. li ngay njëkk def mooy wuti impo état moom impo moom mooy yoon wi nga xam ne fi la war a jaar pour am lu mu. Euh, faje ay soxlaam euh, comme ni ko sëñ ñaan waxee léegi euh, xëy na suñu gën a xóot am na domaine yu bari yu ñu war a mën a gën a jëlewaat impo xëy na tudd ko waaye soo jëlee kër yi kër yi daanaka kër yu rafet yooyu yëpp suñ ci jaaroon yaakaar naa mën naa indi xaalis bu bari mm-hmm. ak yeneen ak yeneen soo jëlee société minière yi Euh, su fekkee xool nga ko bu baax tamit parce que souvent convention yi ngay am ak ñoom dana am at yu bari yoo xam ne yow doo jot dara ndax ñoom dañuy génnee dépenses yi ñu defoon yooyu nag euh, su fekkee xool nga ko bu baax am na yoo ci mën a gañe soo paree tamit am na euh, soo am na yeneen domaines yoo xam ne xëy na soo ko gënoon a lañtu même nit ki li muy déclaré comme ni mu ko waxee suñ ko lëñtoo mën nañ gis ne xëy na li mu déclaré war na mën a bañ a nekk loolu yenn saay mu tegal la charge boo xam ne soo ko saytoo su bindee 1000 xëy na charge ba 100 rek la. bon man nag du mun ñoo ñun mënuñoo wax dañoo jaar ci état bi moo tax. mais xam nañ ne loolu yëpp day am. donc su paree ba def lempoom ba pare ba ne lii laa am li ci tegu nag euh, lii la bëggoon a dépenser lii rek la am li ci des mooy bor il faut nga dem lebi. sooy lebi nag euh, mën ngaa leb ci biir réew mi mën ngaa leb ci bitim réew bon li ñu jàpp mooy Sénégal euh, bor bi nga xam ne moom la réew mi ameel bitim réew euh, mi ngi nekk ci walla bokk li état bi amee dette publique de manière générale mhm. su fekkee téeméer mooy alalu réew mi juróom fukk ak ñett moom la tolloo loolu nag xëy na mi ngi yokk parce que gënoon na fee tuuti soo demee ay deux mille siis yooyu bi ñuy doog a génn ci euh, li nga xam ne programme banque mondiale ak FMI ñooñu ko defaloon demoon na ba ñaar fukk ak ñaar rek la woon léegi yéeg na ba juróom fukk ak ñett mm. waaye nag bitim réew li ñu jàpp mooy tànk amoo juróom-ñaar fukk euh, war ngaa mën a continuer di leb mm. kon Sénégal àggagul foo xam ne mënatul leb waaye nag euh, FMI génne na benn rapport keroog mu wax ne watawat donte mbir mi àggagul fenn fii nga def ngeen tàmbali def ndànk parce que yéen a ngi gën a jege jege mbir yi. Euh, léegi li am solo mooy réew moom soo ko yoree da ngay laal fépp. parce que da ngay liggéey ci dépense yi fexe ba foo daan dépensé junni nga jëm ko wàññi ba mu nekk juróom-ñett fukk parce que soo wàññee dépense yi danga nga mën a wàññi lempo da nga mën a wàññi li ngay leb euh, da nga liggéey tamit ci recette yi ngay am nga jëm ko yokk. Euh, dette bi tamit da nga fexe ba euh, ni nga koy amee du nekk lu lay gaañ ndax xam nga su fekkee da nga ko jël ci intérêt bu bari kooku tamit suy ñëw day jafe ci yow su fekkee da nga ko jël tamit ci monnaie yoo xam ne day yéege ko wàcc mën nga ko jël mu mu jar téeméer nga ëllëg ak si biir nga war a fay ñaar téeméer parce que rek dollar bee yokk wala yooyu. alors donc loolu yëpp am na. alors yaa ngi koy wax ñu ngi wax ne 2019 bu ma juumul toll woon na ci 7300 milliards 2020 bor bi mën na dem ba ci 8 milliards 8000 milliards te ni nga ko waxee 70 pour cent moom mooy taux bi nga xam ne UEMOA moom la teg. est-ce que nekkuñu di ko jege wala lu ñuy gën di dem Sénégal warul tiit wala mu am jàqare ci boppam. waaw xam nga sëy bi lii mbir mii li ci am xam nga taux moom. dafa am lu ne ci kaw am lu ne ci suuf su fekkee réew mi alalam a ngi yokk kon dana mën a jël bor bu gën a bari te taux bi du yokk euh, ndax xam nga euh, su fekkee croissance bi yokk na mhm. entreprise yi gën na bari euh, loolu dana fexe ba bor bi du la dana yokk mais taux bi du yokk donc euh, bataay bi da nga koy def ci bor bor yooyu yëpp fexe ba ba alalu réew mi tamit gën a bari ba réew mi nga xam ne borom dootu ko dootu ko Sénégal est-ce que maîtriser na borom waaw maîtriser na ko fi ñu toll nii mën nañu wax ne Sénégal ndax xam nga ñu mel ne ñoom FMI ak Banque mondiale nekkuñu fii pour neexal dëkk yi dëkk yi nga xam ne seen seen yoreen rafetul bis bu ne ngeen dégg leen ci rajo yi Sénégal mosoo gis rapport bu wax ne euh, wala boog depuis daanaka 1994 euh, depuis 1994 laa wax soo xoolee de manière générale sauf yenn année yi li gën a bari Sénégal léegi dañ ko naw ci ni muy yore euh, ay finances publiques am. Mm-hmm. jafe-jafe nag am na yenn saay euh, mbir yi tàng jëpp. waaye danañ fexe ñoom ba génn ci. ba génn ci dañuy leb di fay wala wala naka la ñuy doxalee. non xam nga société yu ñu amee loon xaalis ñu ne fay nañ leen terewul ba tey dese nañu ak société yooyu xaalis lu ci mel ne société BTP yi. waaw loolu moom euh, li am solo mooy nañ leen fay ensuite euh, parce que soo leen fayul économie ci boppam mooy bloqué. Mm. ndax xam nga foo waroon parce que koo ne defaral ma yoon. soo ko fayul du du nangu attaqué beneen yoon. Mm-hmm. Euh, loolu day am donc li am solo mooy. ñu fexe normalement sax Sénégal ci ci luwaam warul am lu ñuy wax arrière intérieur. Mhm. mooy warul amele bor. bor boo xam ne bëgg nañ ko dindi mais est-ce que non warul am bor boo xam ne su jotee du ko mën a fay. Mhm. loolu moom ci ci loi réew mi la bokk. waaye nag euh, ñu ngi li am solo daal mooy di jéem at bu ne ngay jéem a améliorer. pour pour atteindre.